salaamaaleykum euh, mbokk internet Sénégal bëgg naa bañ leen jaajëfalee nuyu leen yéen ñëpp leen wax ne ñu ngi fii ci conseil constitutionnel concernant les élections législatives prévues le 31 juin euh, le 31 juillet prochain mu war a am euh, fii ci Sénégal gi yëpp. donc coow li bari woon na lool lool lool ci ay liste yoo xamante ne ne war na jàll ak liste yoo xamante ne warul jàll am na ñoo xamante ne déposé woon nañu ay recours yu ci mel ne ñoom Déthié Fall pour ñu mun a annuler liste Benno Bokk Yaakaar bi pour ne liste boobu warul dem euh, ñoom it euh, waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom it amoon nañu problème mu liste tout ça nekkoon problème tey nag conseil constitutionnel xëy na affiché lu ñu naan seen i décision mooy booy xool euh, ci tableau bi sax di nga gis avi décision numéro un 2022 du 21 mai 2022 booy xool euh, ci décision numéro un bii nii ngay am fii nii euh, Déthié Fall ngay gis fii nii moom moo nekkoon demandeur en tant que mandataire bu yeewi askan wi Babacar Mbengue électeur Aline Diop mandataire de la grande coalition Gëm sa bopp ñoom nañu ab recours ngir ñu mën a neenal list Benno Bokk Yaakaar bi ndax jàpp ne liste boobu noonu respecté wul euh, parité bi wala list boobu aussi euh, dafa dépassé lu ñu naan parrainage lu ñu déposé dafa ëpp donc décision boobu tey euh, moom la conseil constitutionnel génne pour ñu dem rapidement nga xamante ne dañuy dem directement ci décision yi ñu wax leen décision yi lu ci wax article premier ci décision boobu dañ ne sont irrécevables les recours introduits par euh, Babacar Meng, agissant en sa qualité d'électeur, Dechefal, agissant en qualité de mandataire de la coalition askan wi e Alun Diop, agissant en qualité de mandataire de la grande coalition Gumsabop. après décision yu ñu fi jëlit dañ koy euh, affiché ci euh, journal officiel bi donc loolu mooy euh, décision numéro un boo jàllee ci décision numéro deux bi da ngay gis mandataire national de la grande coalition Gëm sa bopp moom moo ko dugaloon te par rapport ak ñoom seen list liste gëm sa bopp mais booy xool aussi ñoom foofu seen recours bu ñu defoon bi dañ ko rejeté maanaam dañ ko neenal moom mënul jàll liste boobu noon neenal nañ ko booy xool décision numéro trois li ngay am fii nii mooy euh, ñu defoon euh, demande bi muy euh, Massiré jéemé mandataire mouvement citoyen jàmm gox yi mooy euh, ñoom Fadel Baro ñoom it dugaloon nañu ab recours ngir ñu saytuwaat euh, seen liste xool lan lañ fa am mais booy xool ci décision yu ñu jël article euh, premier lu ñu lay njëkk a wax mooy c'est déjà irrecevable le recours introduit par mooy Massiré jéeme mooy seen mandataire boo demee ci décision numéro huit bi moom moom moo nekk si suuf donc nañ dem ci décision numéro 4 d' abord xool décision numéro 4 bi lan moom moo fa nekk pour euh, mbokk internet yi soo ñëwee décision numéro 4 euh, ku ko déposé woon muy waa coalition ànd nawle ànd liggéey mandataires yi nag ñoom ñooy déposé les recours donc ñoom it ba ñu déposé seen recours boo xoolee si décision bu ñu jël fii nii la requête de la coalition ànd nawle ànd liggéey est rejetée donc ñoom it dañ leen neenal conseil constitutionnel dafa neenal ñoom seen recours mu rejeté ko benn yoon bo boo jugee ci euh, décision numéro 4 nga dem décision numéro cinq décision numéro cinq la nga ciy gis ànd jëf-jël Sénégal nas ko ñoom ñoom ñoo ko dugaloon muy euh, Sagar Diouf mooy mandataire bi moom it moo déposé woon euh, recours bu mel noonu donc ba mu déposé recours bi conseil constitutionnel xool nañ ko saytu nañ ko. waaye nag dañ ko mujjee neenal ñoom it dañ ko rejeté donc loolu moom ngeen di am euh, ci décision numéro cinq su ngeen demee décision numéro six aussi décision numéro six mandataire alliance société et citoyenne ñoom ñoo ko dugaloon muy euh, ñoom Abdoulaye Thiam ba ñu dugalee ñoom it pour gars yi saytu leen xool conseil bi jël na ay décision maanaam mu ne leen le recours de maître Abdoulaye Thiam Guissé mandataire national d'ASCOSEN force ouvrière et rejeté donc loolu ngeen jàpp ne décision boobu aussi dañ ko neenal ngeen dem ci décision numéro 7 décision numéro 7 bi moom mooy euh, mandataire coalition defar sa gox moom moo ko déposé muy Amadou Lamine sey ngir ñu saytuwaat ñoom xool seen liste yi donc boo xoolee ci recours bi aussi euh, ñoom it dañ leen euh, rejeté recours boobu noonu aussi jàllul léegi ngeen dellu ci numéro 8 décision numéro 8. boo xamante ne tey la conseil constitutionnel euh, moom la jël muy boo xamante ne xëy na sax moom moo gënoon tenir nit ñi en haleine mooy liste yeewi askan wi mooy bu dépôt ñu ko déposé mooy seen mandataire la coalition yeewi askan wi déposé par le mandataire Déthié Fall booy xool seen list bi ba ñu déposé donc tey conseil constitutionnel jël na décision mu ne article premier la décision numéro 00 60 62 du 17 mai 2022 du ministère chargé des élections est mal fondé maam mu ne article 2 le mandataire de la liste de la coalition Yewwi Askan Wi au scrutin majoritaire pour le départ de Dakar est autorisé à retirer et à substituer d'autres candidats aux deux démissionnaires maanaam mu wax leen ci gàttal maam lu ñu leen xañoon fële ci direction des élections ñooñu loolu teguñu ko fenn ci ministère chargé des élections loolu c'est mal fondé maam teguñu ko fenn donc dañ leen waroon permettre ñu mun ko def changement yu ñu bëggoon indi apporter ko moo tax mu ne leen ci article 2 maam le mandataire de la liste Yewwi Askan Wi Déthié Fall maam autorisé nañ ko mu dellu foofu noonu mu retiré ñi mu bëggoon génnee ci liste mu dugalaat ñi mu waxoon ne ñoom la ko war a dugalee mooy ñu démissionné woon mu am ñu leen remplacé loolu moom mooy euh, décision yu ñu jël fii globalement donc lu ci ëppoon solo ñu mun ko jàpp en résumé mooy euh, liste Yewwi Askan Wi ci décision numéro huit permettre nañ mandataire bi au scrutin majoritaire pour le département de Dakar mu dem mu substituer dugal génnee ñoo xamante ne dañoo démissionné woon mu dugal ñeneen beneen décision phare boo xamante ne aussi mun nañ ko jàpp mooy recours bu Déthié Fall dugaloon mooy yeewi askan pour ñu neena liste waa Benno Bokk Yaakaar boobu noonu moom dañ ko mujjee rejeté foofu ñoom amuñu ci ndam foofu dañ leen ne délai bu ñu war a def recours ak seeguñ fi mais dégg nañ sax Déthié Fall moom ci boppam xamoon na ne noonu lay demee parce que nee na tactique la woon donc loolu lañ leen indiloon tey ci décision yu ñu fiy jëlee di xaar entre autres xëy na nañ am yeneen réaction comme nu ñu amee Déthié Fall boobaa après bon ñu wax leen luñ fi jëlee waaye pour le moment lii moom mooy décision yu génn ci conseil constitutionnel di euh, jox dig daje les internautes.